Hadi. Omar rek eh? déedéet man ka dama doon def yaa ma foofu de ah daluma sa kaw de Seex man kay duma dal sa kaw wax dëgg yàlla dama leen a respecté trop Balla Gaye dee ngay ñibbi man dama jaar lu muy def Dame Ndoye a ngi noonu Lagrosse jëlee nañ indi ko ba soixante dix huit pour cent. ok donc uh-huh. il faut que vraiment mu continuer le travail. pour au moins ñu dem quatre vingt dix pour cent parce que il faut la aussi il faut xam ne foog muy yéeg par ndànk-ndànk ba àgg au sommet. ci physique. ok ngeen comprendre ne ku gis tey rek. ok meroo jëppiyoo mhm. mhm. mhm. eh, ñaari mbër yi. kenn deful effort de plus. ku ne respecté sa morom. s' est plaint de Lac Rose parce nañ ne quand même nekk téye. man dama mos a xalaat ne seen combat day yàgg ci guddi. Tapha Gueye avait promis aux Sénégalais que Lac Rose allait faire un retour spectaculaire. exactement tu sais pourquoi. Ah. en fait. Euh,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 amu ci kenn ku def mieux que sa morom tey uh-huh. mais ñëpp nag day séentoon ne eh Balla dafay ñëw taxañ ko dem yoonam ma ne wax loolu uh-huh. ma ñëw tey toog diñ leen gis ci ay lamb mais mais mais Modou Mbaye man dinaa ko dagg ah li tax ma koy ma leer moom moo biñ ne Lac Rose ak da ñu tegal koy condition bu ko mënta atteindre du bëreet ci lamb ji alhamdulilah yow yaa waxoon loolu du li ci dabaañ xam nga xale yi tamit waaw am seen ay soxla am seen njaboot waaw yaakaar ne à tout a rek mën nañ jël avance bëri waaw parce que léegi di phase nag di doxee noo xamante ne dorénavant mm-hmm. kenn du fi jël avance mm-hmm. te accord amul donc moo tax moo lancé un message ci début saison bi nag promoteur buy jox mbëru passe avance xoolal li ngeen joxe ménager koy jël mm-hmm. parce que ménager jël na ko lekk dal yaa ko fekk sa moo tax ren rek bi ñu ko tegee à la un mois nga yëngatu ñu doog a jël avance bi mu ñëw yëngatu un mois ñoom suñu xel dal ci moom jël avance bi je pense que c'est ak liggéey bi li muy signifier mooy vraiment alhamdulilah bi am li ñu am ni gën nañ ko am parce que dañu préparé benn combat euh, deux deux lutteurs ci benn coup deux semaines moo dox seen diggante donc Serigne Ndiaye euh, Lac Rose aussi plus de chance bi mu am mooy mm-hmm. boo xalaat bi Serigne Ndiaye di préparé mi ngi préparation de Serigne Ndiaye euh, duré na aussi moom ay deux mois parce que dafa na stage ñëwaat bi muy entre quarante cinq jours la lagros aussi ñoom ñaar ñu bokk même préparation. Mhm. Gris Bordeaux jógee voyage aussi ñëw bokk ci biir bokk ci biir bain bi. Mhm. et puis amaat nañ beneen jeune buy bëre bu ñuy wax Caatu euh, Montagne. Caatu mhm. Montagne am na am na benn suñu boy yaa ngi bëre tous les dimanches. donc bu ngeen ñëwee. Euh, euh, entraînement entraînement da gis ne y a plus de cinquante leaders yu entraîné. loolu moo nekkoon suñu problème. da nga ñëw fekk fa trois personnes deux personnes moo tax ma doon génn ci presse bi di wax. tey face na yow de da ko ne di say ca quoi waaye ñay yëq na doomam bañu ko lii laa ci bëggoon rek tey amul kenn ku doon capable ne Lac Rose mën na taxaw def un combat 10 minutes repos, 10 mhm. minutes après 5 minutes. C'était le problème. Avant la fin de saison, la on peut avoir un autre combat. Mais, mais, mais dama gis xeex bi benn instant Lac Rose xawoon na démené. Mhm. est-ce que jàpp nañu ne bu accéléré woon xeex bi ci kaw adversaire bi ah, mënut a jeexal làmb ji. Ah, voilà ah, en fait xam nga aussi euh, mbër bi tamit euh, euh, stress am. Mhm. la peur de perdre Lac Rose tey tey combat bi su ko ñàkkoon tey ji moom. dañ ne ko mooy mooy sa dernière chance ah xaw a métti ci moom le fait que mu taxaw opposé ak Baba la fayit ak moom bëreeg moom jàppante moom dawul daayul c'est important donc daal vraiment daal li ñu wax rek mooy ñaari xale yi bëgg nañu temps réglementaire ba mu mat sëkk ñu machine niil et pourquoi pas euh, promoteur bi ñu ak reprise ko mas daal jaadu na mais jaadu na me dañ ko war a bëri waat dama lamb rek dama bëgg ñu dekkal lamb ñaari mbir bëri teewoo am na lu tax ñu teewoo. waaw kaaw géejawaay xool tax ñu teewoo ñu liggéey ci. kaaw Fass xool tax ñu teewoo ñu liggéey ci ba ñu mën a taxaw xas-xas ba bu ñu bëriwaatee foog ji la. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah.